ñu ngi euh, dalal euh, ñu baax ñoo xamante ni dañoo fas yéene bégal euh, ci ajuma bi comme ni ñu koy defee yoor yoor bu jot di waa kër Serigne Wadane Sougou ñu ciy profité nag di bégal suñu xarit yëpp ah di souhaiter un bon anniversaire à a Ndoye nekk King Fahd et puis Ngoné Gueye Médina rue 15 Fatou Sagna Aram Diène notre maman à la Padoua Oumou Khayri Ndiaye ak euh, yaayam ca Padoua Adja Ourey Samb rue 11 euh, taalibe Serigne Babacar Sy ak yaayu petit ñu ngi koy bégee bu baax a baax a baax a baax a baax a baax kamu sekk kamu c'est l'homme fort euh, kamu protocole kamu ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire ah ouais tey la anniversaire kamu kamu sec waaw ko nag ah ah kamu baax na kamu bëgg na nit kamu fonk na yuusu lu yuusu bëgg mu bëgg kamu lu télévision futur média bëgg mu bëgg ah kamu dafay dem ba jeex ah, kamu euh, euh, yàlla baaxal na ko mhm. comme li ñu koy faral di wax kamu bul changer kamu sec mhm. ah vraiment ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire beaucoup de bonheur pour toi mhm. c'est de la part de la grande famille bu futur média euh, ñu lay ñaan rek nga dund yàgg fi lool te weer voilà ba dund sàppi ko 111 ans kon ñu leen ak waa kër Serigne Wadane Sougou comme ni ñu koy defee ma bu jot ñu dugg si nuyoo ci eh, li ñu indil tay ci cant yi ayca xotti leen waaw waaw ayca Alxuraan borom yàlla jaamu nga kenn nga yàlla la de musuma gis ni ndekete pulo ni la déggee galaj ah, nañu wax nañu wax tuuti nañu wax tuuti ah voilà jërëjëf euh, euh, ñu euh, may leen loxo waa kër Serigne Wadane Sougou Ah, ah njabootu wa daan Sougou yëpp ñu ngi leen di ziar ak taalibe yi waa kër El Hadj Maguette Gueye ah, mu ah, ajaratu Khady Gueye ca parcelle Assainies ah maami Fallou moom fi mu ne kontaan na Adja Khady Gueye yaayu Anta Gueye madame Diop ah moom nag dëgg-dëgg taalibe la et puis soppe la defe naa lii di def nii ñaare fu ngeen ko def ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp kontaan pare guñu ak yéen ndax bi ñuy tëjee dañ ciy jàll léegi profito rek gërëm ñi ñuy àndal ca 7 ba tey xanaa rapidement ngeen ñu tuuti rek euh, ci euh, groupe bi euh, ci seen liggéey ak activité. waaw asalaamaaleykum ñu ngi sant bu baax. Mhm. di siyaar Serigne Jéeri Waraan Sugu yal na yàlla yokki leeram te taas na ci barkeem amiin di siyaar sëñ Maxtaar Sugu. képp koo xamante ne moo topp ci ginnaawam. di siyaar sëñ Mamma Sugu. Mhm. di siyaar sëñ Waraan Sugu. Mhm. di siyaar képp koo xamante ne sëtub sëriñ jéeri waaraan sugu nga mhm. ñu ngi lay siyaar ndax ñun ñii danoo am ci ñoom cër lool wallaay taalibe bi yëpp kontaan ndeysaan waaw waaw kon kon kon sar buñ tuddee sëñ Maxtaar Sugu rek tudd ñun ñëpp wallaahi sëñ Amet Sugu wallaahi Bamba Sugu wallaahi sëñ Sugu uh-huh. ñoom ñëpp rek ak sëñ Axma ñoom ñëpp ku leen tudd rek maanaam ku tudd ak sama benn maam bu may tudd léegi nii moom euh, taalibe sëñ Wadaan Sugu la ndeysaan ndeysaan di euh, Maguette Gueye ndeysaan ndeysaan ah. ndeysaan maa ngi siyaar sëñ Siri Mbacke sama xarit di sëtu sëñ Jéeri Wadaan Sugu jërëjëf di siyaar Mam Amadou Sugu uh-huh. di sëtu sëñ Jéeri Wadaan Sugu macha allah sëñ Mama Sugu ah, ñu ngi koy siyaar baax macha allah ah, ndeysaan ndax ndax voilà li tax ñu gën fee ñëw sax ci la uh-huh. moom def na ci passeefam uh-huh. kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi lool amiin amiin ci barkeb sëñ Jéeri Wadaan Sugu di siyaar sumay wóllëre sëñ Modou Mbacke Kaffrine jërëjëf di siyaar waa kër maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak gaawaan noonu samay xarit lan di siyaar sëñ maanaam Mamour Mbacke ibnu sëñ Mous sëñ Moustapha Cayto mhm. sëñ Moustapha Cayto ibnu maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam macha allah ñoom dañuy sama wóllëre di siyaar sëñ Lamp di sama xarit bu baax sëñ Lamp nekk foofee ci Kaffrine di sama wóllëre di sama xarit di sama lépp di siyaar Cheikh Aline Badara mhm. di ñaan yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkeem di siyaar jëwrinam Maxtaar Saw di siyaar sëñ Modou Mbacke mi nga xamante ne moo fa nekkal sëriñ Touba voilà jërëjëf euh, defe naa euh, dañ leen di bàyyi ngeen tëj rek laata boobu ñu euh, gërëm suñu mbokk yëpp ah gërëm gars yi ñu àndal depuis 7 heures man nag ma leen di jox rendez-vous tey ci guddi à partir de minuit 15 def seen émission night show Jacques ak Takeifa dinañu fi nekk ah, Youssou Ndour sera de la partie ah ñuy préparer événement bi suba grand bal bu Dakar ca place du souvenir waaye naka la ko Youssou Ndour di préparer tey ci guddi di ngeen ko xam ci night show bi ah donc waa Takeifa là euh, on les adore ah. Euh, dinañu ñëw euh, live en direct à partir de minuit ma fanaan ak yéen Youssou Ndour itam àndandoo ak ñun bu leen ko wuutee bu ca lay doon sinon Yeewu Leen revient lundi matin. Mhm. à partir de 7 heures. Ah, Merci. Vous allez me manquer. Merci, Demain, on te retrouve ci backstage. Merci beaucoup, Madeleine. BCL, àjjuma inchallah. Inchallah, vendredi. Mais avant tout, euh, damay remercier Fade Bala Linguère parce que tey ci 5 CB. moo fa jaar. lépp fi jaar. xam nga mm. tamit nit ki jox la tissu ñawal la may la mm, ko. Mm, amoo payam ñu koy jaajëfal donc lu bare bare. Euh, Fade Bala Linguère dem leen seeti ko. voilà ñu ngi koy gërëm bu baax moom suñu euh, xarit la. gërëm tamit bu baax moo dafay ak ñi mu àndal. Mm-hmm. ca palaasam ba kon ñu bàyyi leen ngeen leen tëj yeewu leen bu tey di leen souhaiter un très bon week-end jàpp leen ni vendredi tout est permis ci télévision Futur Média et le meilleur reste à venir incha allah à tout à l'heure minuit 15. baba nee na birasuman Seex Bamba jërëjëf ya baariso mu daxmas Bamba nee na biraasumaan baarasani wowo biraasumaan Bamba nee biraasumaan baarasani biraasumaan waaw yu baariso mu daxmas baarisamaan

براسما براسني براسما واو يو بارسو منتقما وهو بارسما Birasuma, Barasani, Birasuma. Saliou Birasuma barisini wowoo Birasuma waawaaw yu barisoo muntaximana barisama arasani bira waawaaw Bamba jërëjëf waawaaw muntaximana barisama si Moodu Mbàkke Birasuma barisini wowoo Birasuma sëñ mama birasuma karasone birasuma sëñ mama birasuma karasone birasuma wax leen yu bari soo mu takumal bari sama waaw waaw birasuma birasuma la dewa jafa tuuba sëñ bambaw ne la waaji muusa bul fàtte waa jafa tuuba sëñ bamba ne waaji muusa bul fàtte waa jafa tuuba kii moo la dee aatu moo la dee Fatima